la mu bind ca livre am boobe mu dippee Macky face à l'histoire am na ñenn ñoo xam ni neexu leen benn yoon ndax seenub tur wala sax seen leader daf dañ koy tudd rek ci ay kàddu wala sax ci anam boo xam ni naqa dina leen lool moom Cheikh Yérim sekk nag journaliste d'investigation boobe gannaaw bi mu annoncé retraite am euh, ci scène euh, publique bi dafa daal di dem rek consacré ci famem ca jamono yooyu nag moom Cheikh Yérim sekk ndekete mi ngi xaatim ab livre bu mu daal di duppee rek ma ki face à l'histoire ci livre boobe nga xam ni moom Cheikh Yérim Seck ma nga cay ŋàññ anam bi nga xamee ni président de la république doxale na ko ci réew mi waaye itam di ko tatagal ci ay réalisation yu mu def ba tey ci boobu livre Macky face à l'histoire moom Cheikh Yérim Seck itam ma nga cay def ay révélation ñeel leader bi ci kujjëg politique yi di Ousmane Sonko di njiital Pastef moom Cheikh Yérim Seck ma nga cay xamle rek ay viré yoo xam ni rek Ousmane Sonko doon na ko def ci atum 2019 gannaaw ba nga xamee ni rek ña ngay waajal lii di élection yi nga xamee ni moo ñeel présidentielle bu Sénégal moom Cheikh Yérim Seck itam ma ngay xam ne rek nii ci at moomee la ñu fekk rek ñii di élément euh, de la police ñoo fekk Ousmane sunko ci biir oto moom ak xale bu jigéen ñu nekk ca naka sudul noonu loolee rek euh, ba ñu ko xamee dañ ko daal di yëgal kii nga xam ni moo nekk ministre de l'intérieur gannaaw mu yóbbu ko ca palais président de la république daal di yëg loolee ne leen loolee ça ne concerne que lui maanaam ki mu concerné moo di Ousmane Sonko ndax loolu vie privée am lañ gannaaw loolu itam moom Cheikh Yérim sekk mu daal di cay teg ni affaire de mœurs boobe yemul fo yemul woon ci boobile oto ndax moom Ousmane Sonko déggoon nañ ko rek mu amoon ay jafe-jafe yu mel noonu jëm ci ab marocain moom Cheikh Yérim sekk ba tey ma xam le ni loolee nag la benn ministre bu bokk ci gouvernement Macky Sall bëggoon a rek politique wala mu campagne ko Macky Sall daal ni ko loolee day digaluma leen ko ndax loolee vie privée am lañ na ngeen campagne ci sama ay réalisation na ngeen campagne ci sama bilan waaye na ngeen campagne ci fi ñu nar a jëmee réew mu Sénégal moom Cheikh Yérim Seck itam gannaaw yooyee nga xam ni rek daal dina koy def ay révélation ci biir livre boobee mu dippee Macky face à l'histoire tax na ñenn ñoo xam ne dañoo bokk ci parti Pastef daal di yëglu daal di jàpp rek ni moom Cheikh Yérim Seck dañ ko daal di yabal rek ngir mu attaqué kii nga xam ni rek moo di Ousmane Sonko di seen leader di seen njiital Pastef moom Cheikh Yérim Seck itam. gannaaw ba mu jëlee ab livre daal di koy jagleel kii nga xamee ni moo di Ousmane Sonko daal di koy dédicace daal cee bind Ousmane Sonko l'homme qui empêche Macky salle de dormir malgré le confort des ors moom Cheikh Yérim Seck nag dafa jël livre boobu dédication kii di Ousmane Sonko gannaaw bi nga xamee ni rek ab xaritam bu ñu bokk ñoom ñaar moo ko ko demandé loolee rek tax moom Ousmane Sonko mu dal di mer ba futt dal di jël rek ay bayit xaatim ko ci page Facebook boobee muy wax ni moom day ak capture d'écran la ko benn xaritam envoyé ngir ni moom Cheikh Yérim sekk moo ko dédicacé euh, boobu le livre moom Ousmane Sonko daal di koy xamle gannaaw ba mu liiree chapitre seize boobee nga xam ni rek dañ ko daal di jagleel euh, moom Ousmane Sonko dafa daal di lank kandaare bañ jël euh, boobu le dédicace nga xamee ni Cheikh Yérim Seck moo ko ko defal di ko tatagal di ko xamal ni ko yow yaay leader de l'opposition ki nga xam ni moo teree eh, eh, nelaw Macky Sall nga xam ne itam moo tere rek Macky Sall daal di yëngatu moom Ousmane Sonko daal di xam ne rek nii loolee nga xam ni def na ko mu di ab livre bu ñu ko dédicacé du lenn lu dul di rek maquiller li nga xamee ni def na ko ci livre boobee nga xam ni daf ko doon tiimaal ci tuuma yoo xam ni dara du ci dëgg bu ñu sukkandikoo ci kàddu Ousmane Sonko ba tey ci ab post bu mu def ci page Facebook am moom Ousmane Sonko daal di xam ne gannaaw bi nga xamee ni moom ci problème similaire maanaam problème bu mës yoo xam ni daloon na kii di Cheikh Yérim sekk di ab journaliste d'investigation mu ne sax dafay bàyyi bàyyi lépp loo xam ne jëm na ci taskatum xabaar waaye itam génn ci lépp loo xam ni rek dafay dugg ci média daal di dem concentré wu ci famem daal di leen di organiser nekk ak ñoom ngir gën a euh, feex ak ñoom ngir gën rek nekk ak ñoom ni wayjur di nekk ak fame wam moom Ousmane Sonko dal di xam ne ni loolee taxul woon benn yoon mu def retraite bi ci vie politique bi vie publique bi moom dafa doon génn rek ngir jéem a wut lu mu chargé euh, kii di Ousmane Sonko mi nga xamee ni mooy xaaj xaatim yooyu la bayit ci page Facebook am moom day jàpp na ni lii nga xam ni rek dal dina koy wax mu di viré bam amoon ca corniche ba ak lépp loo xam ni rek doon na ko wax ngir rek daal di koy tuumaal nee na moom Ousmane ko dara du ci dëgg te dara nekkul loo xam ne lu leer la lu wër la ndax daf ko bëgg a def rek ngir ba di koy empêcher mu nekk candidat wala sax mu tilimal daram ci kanam sénégalais yi moom Ousmane Sonko daal dinay xam ne rek ni moom Cheikh Yérim Seck jëloon na ay kaddu yoo xam ne kaddu yu wérut la kaddu yoo xam ni ay kàcc la jëmee ko ci moom gannaaw bi mu ne moom Cheikh Yérim Seck Ousmane Sonko dafa am ay britannique yoo xam ni rek dañ koy daal di financé ci mbir moomee nga xam ni moo ñeeloon Tullow Oil nga xam ne mbir defoon na mbir polémique bu rëy ci réewum Sénégal moom Ousmane Sonko daal di xam ne ni lépp loo xam ni rek def na ko dafa bëgg rek nasaxal parti bu Pastef bëgg na saxal ñi nga xam ni rek ñoo di ay militant ngir ñu gëm ni moom Ousmane Sonko du nit ku baax du nit ku sell loolee nag moom Ousmane Sonko jàpp na ni du yell du yell benn yoon ci deram ñu ko koy teg te réagirul loolee moo tax moom Ousmane Sonko mu daal di rek wax ak ay avocat ngir ñu jël ab citation directe daal di koy jëbal ki nga xam ni moo di Cheikh Yérim Seck ak édition Harmattan bi nga xamee ni rek moo diffusé yooyu la kàddu jëmee ko ci Ousmane Sonko waaye itam militant Pastef ak accusation yi nga xam ne rek moom Ousmane Sonko dafa jàpp ni dara du ci dëgg moom Ousmane Sonko dafa jàpp ni ay sos yi neen la jëm ci ki nga xamee ni rek moo di njiital Pastef di Ousmane Sonko loola itam taxul benn yoon moom Cheikh Yirim sekk mu daal di noppi ndax moom Cheikh Yirim Seck day daal di nay tontu ca Ousmane Sonko loolee nga xam ne daal dina koy bind ca page Facebook am moom Cheikh Yirim Seck daal dinay xam ne rek ni bi mu xëyee la daal di lire benn publication boo xam ni mu di ab livre bu mu dédicacé kii di Ousmane Sonko te ab xaritam bu ñu bokk ñoom ñaar moo ko ko ñaan mu jox ko ab dédicace moom Ousmane Sonko moom Cheikh Yérim Seck ma ngay xamal rek Ousmane Sonko ne ko lii day firnde ni amoo benn maturité politique amoo benn leadership ci ni ngay doxalee ci politique nee na ko amoo expérience te lii dafay firnde rek déclaration yi nga xam ni daf koy def moom Cheikh Yérim Seck nag nee na dina nangu citation directe bi nga xamee rek na ko ngir dina ko jébbal uh, moom Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Seck daal di xam ne ni loolu daf koy permettre rek bu ñu demee ba ca kanam enquêteur bi mu daal di étayer mbir yi nga xam ne rek mooy leeral affaire boobu nga xam ne moom la ko doon tudde fële ca corniche ba mu di ab viré dina indi ay firnde yu bëri yoo xam ne moo koy leeral ngir ñu xam ne Ousmane Sonko mii nekkul ku sell nekkul koo xam ni mën na diriger réewum Sénégal nekkul koo xam ni rek mën na yor réewum Sénégal ndax moom Ousmane Sonko dafay bokk ci rek prototype bi mu tudd ca livre boobee muy homo euh, pacifiensis bi nga xam ne rek amuñu culture politique amuñu expérience amuñu intelligence amuñu sociologie ci mbirum euh, politique loolee di ay kaddu yi Ousmane loolee di ay kaddu yi Cheikh Yérim Seck mi nga xamee ni rek nangu na ngir dem euh, wuy ji ci citation directe boobee nga xam ne Ousmane Sonko def ko wax ni dina rek woo ay nitam woo ay avocat ñu yóbbu yónnee ko lii di citation directe moom Cheikh Yérim Seck itam di dànkaafu kii nga xamee ni moo di njiital Pastef ne mbir mii di mbirum mërs su ma ci doon wax mën naa cee bind ab livre ngir ñu xam ne yow mi nekkoo ku sell sa jikko la capitaine Seydina Omar Touré ba futt daal di tontu kii di Cheikh Yérim Seck gannaaw bi nga xamee ni rek daal dina koy tudd ca livre boobee ca page bi nga xam ne moom la ñu duppee 86 ak 85 moom ex capitaine de la gendarmerie boobee daal dinay jàpp ni rek accusation yu grave yi nga xamee ni Cheikh Yérim Seck daal dina koy boobee dara nekku ci lu nekk dëgg dara nekku ci loo xam ne rek euh, lu vérifiable la ba tax na moom capitaine Seydina Omar Touré mu daal di xam ne rek ni dana jébbal ab plainte kii di Ousmane kii di Cheikh Yérim Seck ngir mu indi ay leeral ci accusation yooyee nga xam ne moom dafa jàpp ni ay feni la kàcc neen dara du ci dëgg ngir mu indi ay preuve moom Cheikh Yérim sekk nak ab citation directe ak ab plainte moo ngi koy xaar gannaaw bu mu bindee livre boobee nga xam ne moom Cheikh Yérim Seck doon na artu sénégalais yi ne livre bi day bu génnee ñi nga xamee ne amuñu argument ngir défendre seeni idée dañ koy jéem a attaqué rek ci personne am ko attaqué ci famem mu nekk mbir moo xam ni mbir mu doy waar la ay révélation explosive yoo xam ne daal dinañ koy bind ci livre boobee nga xam ni moo ñeel Macky Sall ci ak gouvernance am moom yi Cheikh Yérim Seck itam bi muy tontu Ousmane Sonko nee na ko dédicace bi ma la yónnee day moom laa yónnee Macky Sall te Macky Sall li ma ko yàq ci biir livre bi moo gën a metti lool ci li ma la yàq waaye itam ba tey gisuma benn yoon la ma dédicacé Macky Sall mu daal di feeñ ci réseaux sociaux yi yow nag amoo benn yoon maturité politique amoo intelligence politique waaye itam amoo benn yoon culture ñuy wax ca livre boobee noppeegunu kii eh, di rappeur di nit dof ñu daal di koy arrêté fële ca këram waa sûreté urbaine itam ñoom ñoo ko arrêté jébbu ko fële eh, ca commissariat central bu Dakar jamono ji nag xamuñu lan moo tax ñu daal di arrêté kooku di nit dof di ab rappeur waaye am na ñenn ñoo xam ne seen xel dafa dem ci live bi nit dof doon def di yëkkati ay kàddu ñàkk teggin di ko jëmale ci gouvernement bu Sénégal dem sax bay saaga ay nit loolee moo tax moom nit dof daal di def ab post